mo meuna ne musna gis wa Pastef wala opposition dal ci kaw wa keur Macky fekk len ñuy meeting ñu dal sen kaw wala fekk len ñuy def sen karawat ñu dal sen kaw wala wala wala kan moko ko fi amut amul te du musa am kon lan mo andi wax jep imma ñeme na nit ñi ñeme na nit ñi def dañuy dem jàpp ci loxo Macky Sall ne ko yow yaa nekkul ci dëgg yar bi nga yor di dóor nit ñi teg ko ci suuf suñ ko ñemewul nag nañu dem toog bàyyi nit ñi ñu régler seen problème parce que tamit ñun ñëpp ay julit lañu alquran bi ñu gëm moom ci boppam lan lañu sant bu dee ñaari nit ñaari groupe tongoo nañu bu dee ñaari groupe tongoo nañu sama alwa soriwul nag sama sëriñ sama xarit sëñ sëñ al amin si li may wax peut-être moom ma ko gën a xam waaye alquran da ko wax ci sourate hujurat bu dee ñaari groupe tongoo nañu verset 9 na ngeen essayer da fetal seen diggante waaye nag bu amee benn groupe bu bew bañ continuer moom ci tooñ bi ak ci dóore bi yéen ñëpp nangeen ànd xeex ak moom ba xelam dellu ngeen doog a rafetalaat diggante bi yàlla moo ñu gën a màndu yàlla moo ñu gën a màndu nit ñi dañoo ragal Macky Sall wala lan yàlla xam na ni li fi am yëpp su doon am na benn bu jógee ci opposition benn bu jógee ci Ousmane sonk kon dootuma xaj ci dëkk bi dootuma fi xaj mais lan moo waral nag senegal bu nit yoree nguur lu ko neex mu def te kenn du ko wax ba pare ne waa opposition bank leen seen yox rek te toog muñ lan moo waral ñu jàpp ni fii Afrique rawatina Sénégal ku nekk opposition rek yow da nga war a nekk benn souffre-douleur mooy dañuy sax soo ne opposant la ah waajal de di nga dem kaso lan moo ko waral pourquoi xanaa tubaab bi ñoo ñu gën a bëgg seen bopp tubaab nit mën a opposé subaak ngoon et cetera mu am ay règles démocratiques te kenn du toog naan kii dañ ko war a tëj kaso Sénégal boo ne opposant la rek dañuy ñuy njëkk a xalaat ah mbaa waajal nga sa bopp ah dinañ la dóor de ah dinañ la yóbbu kaso de pourquoi opposition crime la wala lan la nañ wax ci ban charte réew mi lañ ne opposition crime la ba kuy opposé rek da nga war a dem kaso wala kuy opposé rek da nga war a toog ñu lay dóor subaak ngoon parce que waa ji yor nguur fan lañ ko bind ci réew mi loolu nag dina fi dañ ci nii wala ci nële dina fi dañ